premier point bi nag mooy la situation réew mi fi mu toll ndax ku ne xam na ni ginnaaw verdict bi nga xamante ni siis bi génne woon na ko ci jamonoy procès Ousmane Sonko Adji Sarr mu di condamnation boo xamante ni ñu bari séntuwuñ woon ni daan ko condamné comme noonu juge bi ñëw def condamnation deux cent ferme ak xaalis bu ñu ko amandé muy metnaanga boo xam bu rëy la nag ci population bu Sénégal ginnaaw bu loolu wéyee nag mu jur ay yàq-yàq yu baree bari ak ay bakkan yu faatu ñu jàll ñi nga xamante ñoo faatu ñëpp seeni mbokk di massawu ñi nga xamante ñoo ci gaañu ñëpp di leen ñaan yàlla yëkkati leen muy loo xamante ni lu mënoon a ñàkk la ci réew moo xamante dafay dox ci démocratie ndax ku ne xam na ne deux mille vingt et ci la mbir mi amoon ma taxawoon en tant que député jamono yooyu nekkoon vice président commission de loi jamono yooyu nekkoon di ko jàppale ci injustice bi ñu ko doon teg ngir xeex dëgg ci réew mi ma ne woon projet bi c'est un projet politique ci complot politique dañ ko bëgg liquider candidature am pour élection président 2024 wax boobu ma waxoon ñu dem ba projet bi jot ma dem fekk projet bi bi ma génnaate déglu ñaar ñëpp ma dëgg dëggalaat samay kàddu parce que nag man doomu daara la te sëñ Tuubaa rek mooy sama royukaay te ñu muuma wala bëgguma wax lu du dëgg parce que ëllëg a tax may ne la ma leen waxoon 2021 mooy li am tey c'est un procès politique contre Ousmane sonk benn objectif la si am muy liquidation candidature boo xamante ni Ousmane Sonko bu posé mën na ko gagné mu bañ mu poose mu def lépp pour éliminer ko si candidature boobu noonu kon fa ñu nekkoon fa la ñu nekk ñu ngi solidarité ak moom ci li nga xam mooy li ko dal di ko massawu jafe-jafe yi muy dund yépp ndax ñun réew mi dafa nekk réew moo xamante ni ñun ñëpp ñoo ko bokk te jàmm moo gën alal jàmm aussi moo gën nguur ndax am réew kenn mënu ko jot ci fitna pour ay rey ay nit tax nga jot ci nguur taal ay kër tax nga jot ci nguur yàq alali réew mi tax nga jot si nguur yàq alali jàmbur tax nga jot si nguur kooku nguur jëru ko mais kenn warul toog si nguur ngir ay nit faatu ngir alali jàmbur faatu yàqu kenn warul toog ci nguur ngir bëgg loolu te kenn ku nekk boo nekkee ci nguur jiite réew bëgg nga si réew moomu noonu la nga fa defe ko su boo fi jógee bàyyi ko fa kon la ma doon waxaat ci mbir moomu mooy la Ousmane sonk ak Macky Sall lépp lu xew ci réew mi ñoom ñooy responsable Ousmane Sonko Macky Sall lu xew ci réew mi ñoom ñaar ñooy responsable kii dafa bëgg a jël nguur tax mu woote kii dafa bëgg a des ci réew mi tax muy galgal adversaire politique am ba lii am am kon nag yàlla dogal na yoon mooy doxal te yoon wax na ci constitution bi article 27 Macky Sall amul sañ-sañu def lu ëpp ñaari mandat yu tegaloo kooku yoon génn na ko yoon bii doxal mooy ginnaaw bu ñu ñaawloo doxalinu suñ justice bi ci yenn yi ci politique justice boobu àtt na wax na ni Ousmane Sonko kon na ko 200 ferme kun tëj 200 ferme yoon moo la tere mënuloo bokk ci élection kon Ousmane Sonko ak Macky Sall ñoom ñaar ñëpp kenn amul sañ-sañu bokk ci élection nañ leen dàq gën leen pour que ñu continuer li nga xamante ne mooy suñu réew. parce que nag li yàqu si réew mi ku mu naqariwut doo nit ku mu naqariwut doo jullit ku mu naqariwut doo ko baax parce que milliards yi ñu perte nit ñi faatu te ñi faatu ñëpp benn doom politicien nekku si benn jabaru politicien nekku si benn seen mbokk ñoom nekku si ñuy génn ay doomu jàmbur xirtal leen pour ñu génn ban ray leen kon bëgg na enquête bi mu gaaw te leer ñu sitewu wu rey teg leen ci yoon parce que nag mun ñu continuer di rey ay nit yoo xamante ne ay doomu Sénégal te teguñu ko fenn du leer ndax vingt 2021 rey noonu fukk ak ñeent 2023 ñu rey fukk ak juróom-benn rey googu nag bëgg nañ mu arrêté nu mu gën a gaawee ba pare ñu leeral ñi leen rey ñu mu doon ñu topp leen ci yoon. makki sàll au lieu que mu tal suñu doom yi faatu jaajëfal ñi nga xamante nii mooy république bi république bi masse wu ñu faatu jaale leen au que mu def loolu mu dem ba Ukraine ñan fa rey mu leen tàll ay sondeel ak di leen naqaru loolu ñu koy ñaawal di ko naqar bala ngay dem di fekk kenn ku faatu bitim réew yow ñi faat sa réew nga war a njëkk a defal loolu ba noppi di ñaawlu taxawaay bu baax a baax gouvernement Sénégal ci li nga xamante ni moom lay doxalee si réew mi ndax réew bu tollee fenn fii da nga war a jël ses responsabilités mais gis nañ ni muy waa Bennoo Bokk Yaakaar muy waa Yewwi Askan Wi réew mi ñuru leen askan wi soxalu leen seen mbiru bopp moo leen ñor bu njëkk bi ku ne xam na ne nawet bi ñëw na jiw wi war naa dem demagul engrais amagul baykat yaa ngi toog di xaar sonn buy bëgg a dee gis ñu kenn ku leen taxaw ma jàpp ne gouvernement Sénégal dafa war a jël maanaam ay matuwaay wax ak askan wi wax fi xaalis bi toll wax fi jiw wi nekk wax fi engrais bi nekk ak ñaata lañ jot joxe ak ñaata moo si des pour que mën a taxaw baykat yooyu defuñu ko loolu ñuy wax ay wax yoo xam ne waxi ko daanu si la waaye askan wi jëlaat kàddu au lieu que ñu wax loo xam ne mooy intérêt baykat yi di seen njëriñ defuñu ko ñuy wax waxi ko daan sub ak di wax wax yoo xamante ni pour lu indiwaat fitna ci réew mi kon ñoom ñaar ñëpp ñu ngi déplorer di ñaawlu ñàkk gi ñu ñàkk maanaam soutenir population bi di soutenir seen intérêt bopp ak seen intérêt politique bi nga xamante moom la ñuy défendre ak seen i ndax bala nga naan naam da fay nekk baykat yi sonn nañu heure bi daa fekk na jiw wi dem waxoon naa ko ministre bi ba fi may wax yow jiw wi demagul lan moo tax demagul est-ce que dañoo amul xaalis est-ce que ko yor daf ko mënta yore lan moo tax engrais amul lan moo tax taxawuñ baykat yi ba pare ñaareel bi njool bu amee ñi nga xam ñoo war a tey taxaw muy opposition bi nga xam ñoo war a jóg di kaasal askan wi seen bopp la ñuy kaasal mais askan woowu noonu kon loolu dama koy ñaawlu nguur gi nga xam moom la Macky Sall jiitee yaakaar naa te war naa jël ay taxawaay ay matuwaayam defu ko lu du nekk si intérêt yoo xamante ne intérêt calendrier électoral la loolu dama koy ñaawlu tey jii di ñaawlu taxawaay bi nga xamante ni amaan na jëm ci mbirum tëbës gi nga jub si ndax tey tëbës gi fukki fan ak ñett mëtutu lis des ñëpp a jaaxle ñëpp a jomm ñëpp a waaru Sénégal heure bi bu masaa jot ñëpp santen tabaski gaa ngi ñëw seen xel daal gouvernement Sénégal amul benn maanaam matuwaay bu mu jël pour que man tabaski mën a jaar yoon ñëpp mën tabaski jàmm xar yomb defuñu ko lu dul ñuy complot di dajaloo ya cinq via dans la vie yi nga dans la dans la rue yi nga xam ñoo daje woon keroog ci seen conférence de presse boobu noonu di wax loo xam ne waxi naq sa xanañ la waxi caaxaan la ci loo xamante ni amul bopp amul genn au lieu que ñu wax ci li nga xamante ne mooy yitteel askan jëm si tabaski defuñu ko waaye yow askan aussi jël kàddu ñoom tamit au lieu que ñu wax ci mbirum tabaski gi man a garanti askan ñu dem tabaski si jàmm ñuy bëgg wootal benn manifestation boo xamante ne la 25 kooku tamit dañu koy ñaawlu te maa ngi wax ni képp koo xam yaa ngi bëgg sa réew nga nekk patriote loolu ñoom ñuy wax seen intérêt bopp tax ñu ko wax nañu respect ñëpp benn focus pour dem tabaski bi si jàmm ak dal indi seen xel dal ndax diggante fee tabaski képp ku fi yëkkati manifestation. wala nga yëkkati fitna noonu réew mi nga noonu jullit yi nga noonu islaam nga te du laa war a rey maa ko wax ku fi yëkkati fitna ci ñoom ñëpp parce que tabaski dafa am maanaam sacré bu am boo xam si ci diine bu jëmee fii tey ñu ay nit bëgg a jóg maanaam fexe ba ay nit yoo ay jullit dañ yoo xamante ne lu ñu war a def la tey ñu bëgg leen koo xañ ñooñu ñu leen ko bëgg xañ ñoonu islaam lan te képp ku nekk noonu islaam la bu a reyee dagal la kon manifestation ñuy wax yuy wax yëpp nan ko arrêté ko ci suuf procès politique kenn du ko combattre si rii da nga koy combattre si carte procès politique kenn du combattre si pour ñàkk sa bakkan da nga koy combattre si maanaam ci dignité loolu mooy àddina kon jàpp naa ni ñaar yooyu yëpp kenn ku nekk war ngaa taxaw taxawaay boo xamante ni bu wuuteel ak bi ngay taxawee parce que taxawaayu benn boo ko yaakaar ak yeewi askan wi dañoo fat sénégalais yi fat askan wi te mët ñu 500000 ci li nga xam mooy population bu Sénégal li nga xam moo jëm si aj màkk gi jamono yi may wax a yow ak màkk ji tàmbali na mais tey amul benn Sénégalais booy gis mu naan la wal bi nii la BUCR yi waxuñu si organisation bi waxuñu si te sax maa nit ñi dem màkk tar benn police politique boo xamante ni nit ki dafa wax dafa bëgg a bokk candidat kenn may tam dama bëgg a bokk candidat mais yow doo bokk muy ñaar ñuy xëccoo lan moo ci dar faat ay bakkan lan moo ci dar taal ab terre ak berte yàq ay banque rey ay nit lan moo waral loolu sakaase ay consulat kenn ku nekk yaa ngi dund injustice man heure bii may wax ak yow daaw maa ngi si kaso bi heure bi daaw maa ngi ci biir kaso bi Macky Sall kidnappé ma fii fii sama kër la ma jàpp yóbbu ma mais ku ne xam na ni injustice la te Macky Sall nguuram gi lim si tëj si ay kilifay diine buñ ko doon wàññi du jeex moo tax ma ne fi ñu toll si réewu Macky Sall mii nekk fi manu kenn moo gën foofu noonu nekk fi kilifa diine parce que benn manu kenn bu ma sa tëj amul mais kilifa diine yëpp dañ nañ leen kon nekk mannequin ci nguuru Macky Sall moo gën foofu ndo leen nekk fi kilifa diine ndax ku nekk kilifa diine yaa ngi si dansé tant que Macky mi ci réew mi waaye boo nekkee kenn moom loo man di wax loo mën di def bu mu la yóbboo kenn doote mandat dépôt loolu am na si ay preuve parce que Cheikh Bara Ndiaye di suñu xarit di taalibi Serigne Touba maa ngi alerté di ñaaw lu taxawaay bi nga xam moom la état def ci moom dafa feebar def grève de la jabaram am doom démb maa ngi wax nañ ko bàyyi mu delluwaat ci këram parce que jot si réew wala téye réew waroo jàpp ay kilifa dina ngir jot si réew wala nga toog si réew di ñaawlu taxawaayu état bi ci ni ñu def Serigne Saliou Gueye un homme brillant ku bëgg réewam taalibi Serigne Touba Serigne Saliou Gueye heure bi dem maa nga fa seeti naa ko mu dal xam ni àddina natt bu nekk yàlla moo ko teg doomu aadama deful lenn loo xamante ni war nañ ko see maanaam toppal ñu ko jàpp waaye mu exercer li nga xam ay droit am ñu fexe ko maanaam téeloo làmmiñam tëj ko si biir kaso bi maa ngi ñaan état senegal mu bàyyi Serigne Saliou Gueye mu dem gëntaat dem ci ak njabootam Tabaski ji ak ñu seex Bara Ndiaye noonu laa koy wax ji Serigne Assane Mbacke mi nga xamante ni suñu rakk la nekk Jurbel toog na fa ñeenti weer ñu tëj ko si kaso bi tëj goo xamante ni kenn xamul lu mu doon parce que moom bu fekkente ni dañ koo jàpp te fekki wuñ ko li tax maanaam ñu jàppe ko lu dul dégg na ni yaa def nàngam mais am na ñeneen ñu wax li sëñ Assane wax te ñu ngi si dox seen soxla mu tëj ko ñeenti weer yoo xam mi ngi foofu pour ko mun ñu ko bàyyi nañu bàyyi sañ Assane Mbacke mu dem tabaski ji seen kër di ko wax aussi tamit si paat Ndiaye journaliste bu wal fajar yi ndax jàpp gi dafa ëpp te lu ëpp tuuru jàpp benn journaliste mi ngi mel ni jàpp ñaar téeméeri sénégalais jàpp benn kilifa diine mi ngi mel ni jàpp junniy sénégalais parce que yàlla moo dogal loolu mais seet na ni dafay mel ni danaan makki sàll sa nguur gi tant que yaa ngi si bëgg toog di continuer del jàpp kilifa diine ak journaliste yi en tant boo ko dee def da nga fi nekk kon maa ngi ñaan kilifa diine yi di ñaan makki sàll mu ngi xam moo jiite réew mi Serigne Saliou Gueye Cheikh Bara Ndiaye Papa Ndiaye Serigne Assane Mbacke nañ leen bàyyi ñu dellu seeni kër ak ñëpp ñoo xam jàpp na leen te tegul si yoon ndax jàpp nit du tax nga àggale sa projet jàpp ay nit du tax que li nga bëgg nga am ko te koo jàpp rek am nga téeméer nit yoo xamante ni merewaat nan la élection doon sëb ñu wate contre la ngir ki nga leen jàppal kon na état bi xool baax li may def jàpp bi mi nga bëgg a bari li nga xamante ni moo jëm ci. situation bi nga xam ne moom la ñuy waxaat concernant assemblée national man ba ma nekkee assemblée député ba fi may wax a yow lépp lu ma si wax dëgg la parce que askan wi ma yónnee assemblée. assemblée nag opposition laa fa nekk radical topp ci jiitu groupe parlementaire mais du ma wax lu dul dëgg bu ma déggee ay nit di wax ni dañoo sàcc vingt milliards assemblée dañoo def nangam. te nit kooku di fay 3 millions cinquante mille ci keesu assemblée dinaa leeral ni kat kii li muy wax ni maanaam mooy bit sa assemblée bi mu si am nangam loolu mu wax tamit dëggu ko wér la ndax ku nekk premier vice président commission bu man di doon danga nga am 300 mille te moom premier vice président commission la da nga am 200 mille indemnité de logement 450 mille da nga ko am yoo xam ne mooy sa carburant muy 500 litres da nga am 1 million 300 muy sa salaire. danga am 900000 cent xam mooy une unité de transport loolu boo ko boolee muy 3 millions 150 mille kooku da am député bu ne da am te loolu boo leen boole ça fait 165 député day génn ci budget bi ci 20 milliards yooyu nga xamante ne mooy budget ensemble kon bu ma déggee jën ñi naan dama ko def pour yàq non defuma ko pour yàq parce que damay am yoo yenn kàddu yoo xam bu ñu gisee population bi mere Auchan dañuy jël Auchan wane ni Auchan mooy seen noon ba bu nit mere wuti Auchan damay bañ a li dal Auchan dal ensemble ba nit ñi méritee bu seet gisee député dal si kaw am ni ko yàlla lekk xaalis moo tax may teel alerté woon loolu bokk na si li ma doon wax rek tuuti ci mbirum pencum ndawu réew mi kon daal askan wi réew mii di Sénégal ñoo ko bokk taxawaay bi Macky Sall taxaw ak nguuram kenn rafetlu ko ci réew mi lu ko neex lay def ku mu am ndey ku mu amul ndey ku ànd ak moom lu la neex ngay def te du mujj fen ku ënt ak moom boo waxee dara ñu tëj la si kaso bi kon man li nga xam ne moom laa koy musuma ko ñaan fukki at ak benn yi benn yoon ma sa woo téléphone mi bi sama waajur yu jigéen gaañoo séquma ak moom dara bu ma sañoon soo mu daanu moom laa ko yéene parce que dafa yàq réew mi waaye ci ay carte laa koy defee parce que fu dëkk muy tuubaa ba kër may bàyyi politique wala ba kër may moom mu fi jóge heure bu ma wootee moom dinaa ko gañe Touba. loolu laa ko loolu laa mën a garanti Sénégalais yi pour ñi xamante ne dañoo contre Macky Sall bu ñëpp defee ni man nag yaakaar naa ne élection moom bu amee du nekkati président de la République bu dee bokk kon maa ngi koy ñaan wàcc dara ji ma yàlla jox sëtu Serigne Touba laa nekk député mais maa ngi wàcc daraja jooju di la ñaan ci li nga xam yàlla moo la ko jox nga libéré Serigne Saliou Guèye Serigne Ba Cheikh Bara Ndiaye ak ñoom Pape Ndiaye ak ñoom Serigne Assane Mbacké ak dutini politique yi nga xam ne dañ leen a jàpp ndax président de la république libéré leen du tax nga ne du tee nga nekk président de la république ba 2024. téye leen si kaso bi day tax nga gën a ñàkk ay nit day tax ñu gën laa bañ te mun laa yàqal dara kon képp ku naa la jàpp leen tëj leen toogal téye leen si kaso bi ñu bañ a tabaski ji kooku sa noon la noonu réew mi la te ñooñu ay julli lan ay gor lan dañoo amul njaboot dañoo war dem tabaski ji seeni kër kon loolu maa ngi la koy ñaan boo ko déggee wala buñ la ko jotlee nga xam ni man mii la ñaan tey kilim musa ñaan ñaan na la pour que nga lan man sama jëm bopp sëñ Tuubaa laa ko bàyyee ndax moom mënoo def loo xamante si àddina lu tax ma ànd ak yow dama lay contre ba sa nguur daanu incha allah keneen ku toog sama yoon nekku si parce que li ma ñor mooy xam naa dafa toroxal réew mi te tant mi ngi fiy nekk ba tey dafay continuer di toroxal askan ndax situation réew mi fi mu toll économiquement yàq na réew mi yàq na leen si jikko kenn fi mu toll li may wax ak yow xamutoo foote sa tànk <coughs> kon loolu bu amee ñun ñi nga xamante ne dañoo war a wax ak askan ñëpp duñu dégg dañoo war a askan wi pour que ñëpp duñu dégg mooy doxalinu politiciens yi dañ ko war a arrêté parce que ñoom ñëpp kenn ku nekk sa intérêt bopp ngay kaas kenn du si kaasal Sénégal yi lambda ndax seen daj yëpp kenn du si toog ni dund gi dafa seer kenn du si toog ni jiw bi dafa war a dem kenn du si toog ni tabaski gi nan ba tabaski gi a manifestation kenn kenn du toog maanaam wax ni maanaam ñi faatu woon nan def nangam a nangam ndax ñi faatu woon ci bi ñu def 2021 pacte bi ñoo naa boobu man mii moom laa signé woon bokkoon naa si mais boobu la leen fàtte toog nan maanaam juróom ñetti at yoo xamante ni ñaanalul leen yàlla ba bi mujj bii sax kenn ñaanalul di fàtte na leen pourtant seen njaboot ñooy perte ku ci dee ci xeexu politique bii da ngay perte parce que ñi leen di génn loo ñoom seeni doom du dee seen mbokk du dee loolu dama leen koy wax yéen ñi nga ay ndaw ngeen ndax mën ngaa combattre politique mën ngaa xeex sa politique waaye waruloo taal nag université parce que bibliothèque la ku taal xam-xam taal nga réew te politique warul tax ñu taal université man sama rakk ngi nii fa lay jànge kon jàpp naa ni loolu dama ko ñaaw naqalu ko BRT bii ñu taal suñu alal la ñun noo lepp xaalis bi pour que Macky Sall def ko Macky Sall dafa jóge 2024 est-ce que man en tant que soppi ak doomu daara bu ma jëlee réew mi BRT boobu noonu nan laay def ak bor yi ak nan laa ko continuer pour du ko liggéey TER bii nga xamante ñoo ko leb ay 1000 milliards nga xamante ne si lañ ko def tey bu ma jëlee réew mi 2024 est ce que maanaam dinaa mën a continuer fay bor yi par defaraat loolu nga xam sama doom ngi bitim réew bëgg ñibbisi ñu yooyu noonu est ce que ñu yàq consulat yooyu noonu mérite na pour nekk ay sénégalais lambda ay ay sénégalais nit dañoo war a ànd ak seen xel ak seen gis nga réew ku ko bëgg dëgg dëgg dëgg doo ko taal réew ku ko bëgg bëgg bëgg doo tax ñu taal ko kon ñu taal réew mi ñu tax ñu taal réew mi ak ki tax ñu taal réew mi ñoom ñëpp ñoo yom àtte seen acte crime dañ leen war a àtte ci cour d'assises que nag taal yëfu jàmbur ak yàq àlli jàmbur ak sàcc àlli jàmbur ba pare violer si ay nit encore ñi nga xam ñooy lambar lambar ñu leen di génn ñuy yor ay pistolet ak fetal ci kaw tëli bi mais état na ci ay responsabilité ko génne ko lan moo tax ñemewu ko ba tey kon dëkk bi amul yoon bu la neexee ñu gën ci presse bi di mbal mbali tël tëli te lenn lu ñuy wax loo xam ne dëgg la amul kon état Sénégal na jël ay responsabilités ñi rey nit ñi ñu génn leen teg leen ci yoon askan yëpp mën a xam loolu Ousmane sonk mi nga xam dañ ko brader këram ñu bàyyi ko nu mu gën a gaawee parce que Ousmane Sonko waruñu maanaam jël ab ay ay police teg ko buntu këram mënut dem mënut ñëw teguwul si yoon du dëgg ndax ci constitution bi. dafay wax ne nit ku nekk am nga sañ-sañu dox ak dig fu la neex benn décision de la justice mayuñu askan wi mayuñu nguur gi pour que maanaam mu dem baraadi kër Ousmane Sonko mënuñu génn jabara mënut génn ay doom aussi mënuñu génn kenn du ko seeti encore même boo ko bëggee woo téléphone sax téléphone jabara ngay woote wala nga woo téléphone Jibi Guèye pour jot loo teguñu ko fenn kon maa ngi wax ni li mun Mountakha wax Macky Sall. na ko i bàyyi xel ba mu fa demee si guddi gi troisième mandat bul ko waxate parce que gor nga Ousmane sonk na ko bàyyi isatu Touba yi na nga si wax parce que Touba dafa war a moom boppam loolee nag waxe sëñ tubaab la na ko Macky def nu mu gën a gaawe bu ko deful ñu jël réew mi 2024 def ko kon loolu laa noonu naa wax ak yéen sant leen gërëm leen ci li nga xamante ne mooy daje